Mamadou Yadali rasulullah Serigne Abdoulaat rasulullah Serigne Abdoul Khadir rasulullah Serigne Abdoul Rahman rasulullah Serigne Abdou Samad rasulullah Mamadou Murtada rasulullah yëkkati leen seen loxo rasulullah ñu màggal Serigne Saliou Mbacké rasulullah Serigne Saliou Moodu Moodu Moodu Moodu Moodu Mbacke mu bari ne baana li kulli mën lahoo maquulu ana wasilatu war ndax xam ngeen Serigne Saliou ndax xam ngeen Serigne Saliou ayaa xutba azal asri yaa seyxi Saliou ayaa manawaa malam la ante lesi faaxal baraya bi suudi i wa taqwa wal ixlaasu innaka saalihu yow sëriñ saalihu sajaayaka taqwalaayi wa sudi warida wa bulu daa wal xayru an safta saalihu yow sëriñ saalihu li nu neex ci yow doon nga sëriñ tuba ci biir doon nga sëriñ tuba ci biti awra sa qadimal mustafa saahiran wa batinan sayidan li lawliyaay innaka saalihu miftaahu jannati Cheikh Sall Mbacké yaay ki ko yor te ñëpp xam nañ ne diiwaan yaa di mbër mi fi raw ma jóg ta sant la Cheikh Saliou ca mooy li ma war ndax cant mooy waral ndolleen alxuraan ko wax baytil wilaayati Cheikh Sall Mbacké yaay ki ko yaay fal te yaay folli loo wax oh. yàlla daal di ne kun amaana kuy bàkku Cheikh Saliou mm. moo ko jox la mu yor kum rekki say jajji foo jëm kenn dootu la dar ma mm. taxawi nda foofu ba ci kanam barka la